ñu ëppee bu ñu ëppee mënoon nañ ko parité bi benn góor benn jigéen ñoom mën nañ ci euh, désavantage bi. mun na ko seen côté disposition transitoire la. pour le moment parti boo dem góor ñu mën a bokk mu ëpp fuuf jigéen ñu mën a bokk. donc soo bàyyee noonu rek di nga boo xamante ne quatre-vingt-dix pour cent góor ñi la. ça c'est la réalité ah parce que ñu ñëpp ñu ngi si organisation politique yi. Mm. parce que góor ñi ñooy engagé wu en politique comme moo ko waxee ñoo ëpp fit. ñoo gën a bëgg ah, xëccoo au niveau social parce que jigéen ñu bëri tey dañu préférer accepter leen société bi jox am na hmm. yeneen objectif donc parité bi peut-être suñu demee benn moment ñu xool parti politique yi gis ne jigéen ñi ñu ngi fay ëpp on peut revenir sur cette disposition mais c'est une hmm. disposition transitoire boo xamante ne fii ak ay at suñu demee ba xam ne affaire bi nag gis nañ ci espace public bi góor ñeeg jigéen ñi tolloon nañ ci bu baax a baax hmm. ah, ñu posé waat na débat l'association des femmes ñoom la kenn du ko naatable boo nee la famille ñu ni la ñoo ko moom. dañ leen jagleel boo nee les enfants ñun la ñoo ko moom. ba tey ñoom ñooy féetewoo yëpp ah la famille ñoom ñoo ko moom. les fem ñoom ñoo ko moom les enfants ñoom ñoo ko moom la petite enfance ñun la ñoom ñoo ko moom. nga ni la famille bon le foyer d'une manière générale ñun la ba tey ñun ñoo ko moom. Mm-hmm. mais loolu yëpp baax est-ce fi may waxee. wala saisir woo non saisir naa c'est-à-dire c'est pas. voilà affaire xam nga c'est le euh, compte bañ na ko bu ñuy wax léegi financement sax financement des jeunes. et des femmes mais xam nga xam nga lan la nekkul lutte de pouvoir. parce que suñu jàppee ne lutte de pouvoir la duñ ci génn dafa am société yu ñu nekk ñu xam ni dafa am benn part société bi performance bu mu war a indil Sénégal indil ko ko parce que dafa am fuñ ko gazé maintenant dans l'intérêt de la République. chaque sénégalais chaque citoyen dafa war a mën a am benn niveau de performance. Hmm. donc jigéen ñi li ñuy jéem a yëkkatiwaat indi leen benn niveau de performance. ñu ñëwaat. ci kon li ma doon wax sànq moo bi a waxal de mais. maintenant na ni foofu la. loolu noonu. loolu dëkk bi la du ma ko waxal parce que ba ma ko waxee loolu mooy intérêt dëkk bi ah. Hmm. fu mu toll nii maintenant c'est un choix politique am ñoo xam te ne choisir ko am ñoo xam dañu bëgg continuer le système tel qu'il est hmm. mais dans l'ensemble des sociétés dans ce monde là les gens font tout. dafa bokk ci objectif wu Nations Unies pour ñu fexe ba jigéen ñi mën a participer dans le développement des pays. Mm. donc loolu état bu ko comprendre xam ne sa doomu dëkk yëpp dañu war a bokk ci développement bi ba da ngay teg ay mécanismes pour que partie population boobu xam nga dañ leen xawoon beddi ñu am les performances am les compétences am l'expertise. Mm-hmm. pour mën a développer parce que tey suñu bëggee développer Sénégal expertise yu ñu soxla dafa bëri. donc mm-hmm. yi nga war a ñëw euh, pétrole bi nga war a ñëw on a besoin de tellement d'expertise que suñ ko jëleewul ci benn. parti sénégalais bi ba dañ koy jëli extérieur rek dama xool yi ay yeneen boo fanen dañuy dem jëli ji euh, yeneen expertise alors que fu ñu amee la même niveau mhm. euh, d' expertise euh, mhm. dinañ mën a nañ mën a song lépp boo am jigéen d'accord